et ñu terminer d'ailleurs très rapidement parce que 16 heures jot na ci li nga xam ne mooy coowal rapport yi am ci réew mi parce que dégg naa procureur ñu ne saisir na la division des investigations criminelles pour ñu enquêter ci rapport de la cour des comptes boobu xam naa dinañ am occasion ñëwaat ci mais dama damay damay tombé ci Sénégal ci ci benn vidéo ma ne Sénégal ndekete coowal rapport lu ñu bëgg la ñun gis nga avant élection présidentielle 2019 dafa amoon benn coow bu fi Mame Mbaye Niang mi yëkkati woon jëmale ko ci Idriss Seck mii saaga ko saaga yu tooy Idrissa Seck ak euh, Yankhoba Diattara ci ay nee na rapport IGE bu ñu defoon euh, ne ñoom dañoo xaw ma lan détourné mairie Thiès ak nangam ak nangam gis nga li ci intéressant mooy réponse ma déggoon euh, kii di ko tontu Diattara Diattara l'a traité de tous les noms d'oiseaux maam moom Mame Mbaye Niang wax ko lu ne te pourtant le même Diattara moom Mame Mbaye Niang tey jii ils siègent ensemble au conseil des ministres ma moo tax Sénégal kuñ fi wax ne yaa jubati ne politicien rek <laughs> wax waxuñu la lu doy mais mais franchement doy na waar tey jii ñu ngi jëm ci élection présidentielle deux mille vingt quatre Fatou tey li waroon a doon yitte ñi nga xam ne ñoo jiit réew mi su fekkoon ne jàmbi réew mi rek moo leen moo leen ñor wax ne échéance yu ñu jëm échéance yu difficile lay doon comment faire pour calmer réew mi mais duñ ko def en tout cas ni ñuy def nii duñ ko def ñoom ni ñuy def mooy préparer suñu doole pour kuñ ko def ñu def leen ko te loolu du jàmmi Sénégal moo tax démb damay waxtaan ak benn kilifa bu baax benn homme politique. mu ne ma man de damay xaar kan mooy nekk candidat wu Macky Sall ci présidentielle bi ñu jëm ma ne ko candidat wu Macky Sall mu ne waaw ma ne ko da ngaa yaakaar ne Macky Sall du nekk candidat mu ne waxuma loolu de dama xam ne ñi nekk candidat Macky Sall moo leen tànn ma ne ko ah bon mu ne waaw mu ne ma 2019 moo tànn cinq ñi nekkoon candidat muy moom Macky Sall Issa Sall maître Madické Niang Ousmane Sonko Idrissa Seck cinq xam nga ne fu Issa Sall ak euh, fu Issa Sall ak Madické Niang ma ne ma ne Issa Sall sax xëy na le pur ak waa Moussa Sidine ñoom am nañ organisation boobu mais maître Madické Niang fu mu mën a lijjantee parrainage mais bari na ay hommes politique Sénégal yu ko mën a def. moo tax bi ma ko waxee démb ma ne ko wax nga dëgg de deux mille dix neuf day mel na ne candidat yi ñi neexoon Macky Sall ñi ko leeroon duñ ko gañee ñoo ci bokkoon mais deux mille vingt quatre est-ce que la même chose dina mën a nekk. c'est ça la grande question est-ce que tey les sénégalais dañuy toog di seetaan ba Macky saal ne moom bokk na moom ak diw ak diw ñooy dem candidat ñooy dem nekk élection ñu ñu toog di seetaan comme en 2019 je ne pense pas te loolu li ko xam ne moo ko mën a lijjanti Jamil mooy opposition bi ñu yor nii man ba léegi dama jàpp ne organisation bi ñu war a am amuñu ko organisation bi ñu war am amuñu ko parce que euh, xëy na ay xale ngeen mais boo delloo tuuti ci ginnaaw avant le départ du président Abdou Diouf li opposition bi defoon mooy dañoo toogoon ñoom l'opposition ñu ne élection présidentielle 2000 ay élection yu capital lañ il faudra que ñu def lu ñu mën pour que élection yi jaar ci yoon ba pare ñu ne mais du tee ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat mooy comme li xew jamono ji euh, su euh, su Ousmane Sonko bëggee na nekk su Khalifa Sall bëggee na nekk su Karim Wade bëggee na su keneen bëggee na nekk Déthié Fall Babacar Diop Malick Gakou ku bëgg a nekk candidat nekkal candidat mais dafa am loo xam ne dafa am solo moom la opposition bi tegoon temps wu ñoom jiboka jiboka ci la bokkoon ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm dañoo tegoon lu ñu tuddoon FRTE muy front pour la régularité et la transparence des élections nga xam ne candidat yëpp wala coalition yëpp ak seeni i part dañoo bokkoon ci biir front boobu nga xam ne front boobu li jëntiwul woon kuy nekk candidat ku ko dul nekk benn mission dong la front boobu amoon mooy élection yi na leer par force mu neex Abdou Diouf mu naqari ko élection yi day leer par force FRTE front boobu loolu rek moo doon liggéeyam front boobu xeex xeex yu bari su ma juumul sax bokk nañ ci ñi contribuer ci euh, onel juddu onel mooy l'ancêtre de la Sénat bi nekk nii onel lañ la Abdoulaye Wade jël def ko Sénat onel Abdou Diouf moo ko créé mais tey man doon naa gis ci opposition bi ñu nekk nii ku ci nekk ci ñoom bëgg a déclarer sa candidat nga déclarer ko def comme li Barthélemy Diaz wax keroog ku bëgg a wuti nga dem wuti ñoom Malick ko ñu ngi campagne c'est très bien euh, je sais pas Ousmane mi ngi wër di campagne c'est très bien Euh, Khalifa Sall mi ngi wër di campagne c'est très bien politique noonu lay demee doo xaar ba élection yi ak si ngay doog a wër réew mi da ngay da ngay a jóg Macky Sall noonu la defoon en 2012 2011 2012 même bien avant noonu la defoon mais tey jii waroon na am génn kuréel goo xam ne bu dul FRTE mu nekk beneen organisation boo xam ne parti yëpp dañ ciy bokk désigner ku koy diriger wutal ko ay commission yu dëgër yoo xam ne benn yitte dong la am du ñaar ñett mooy élection yi na transparent ku bëgg a bokk-bokk mais bu ñu toogee fii waa PASTEF di lijjanti combat yi Ousmane Sonko waa taxawu Sénégal di lijjanti combat yi Khalifa waa grand parti ak ñun àndal di lijjanti combat yi Malick ku nekk ne sa combat bopp ku nekk di wër réew mi ah wallaay dinañ fi toog ba àgg ci élection yi ñu ne Macky Sall nee na candidat la nee na diw ak diw ak diw ñooy nekk candidat su boobaa ngay doo commencé di xeex et ce sera trop maa la ko wax ma ku nekk ak ni nga koy déggee.